Euh, neuf minutes ñu wax ko ci benn combat bi nga xam ne nii euh, ci Omar kan rek diggante ba Boy Niang Reug Reug Boy Niang euh, gis nañ sortie bi Reug Reug def mooy chaque jour mu ngi déclassé benn gëm-gëm bu nekk ci moom tamit ki muy dajal nekk benn professionnel boo xam ne ni tamit wane na ay preuve ci làmb di Boy Niang tey ji communication Reug Reug jëm ci Boy Niang loo ko jàngatee damay ragal damay ragal mu ñëw ba jour combat bi jaxlé mhm. Reug Reug li ma koy ragalal c'est vrai bari na atu macha allah Reug Reug ku gëm boppam la. Mhm. mais bu toogee na waxé ni na continuer waxé ni man su ma nekkoon damay continuer communiquer ni mais suma ma man rek non damay jangat mhm. damay damay defal recul man rek mais su génné na naa dox doxlu bu ma mais damay ragal bu ko gëmé ci xolam bu ñëwee ba jour làmb jaxlé Fadam man Boy Niang bokk na si mbër yi ma gën ragal ci làmb. mentalement hmm, ci bëre ci bëre. Hmm. am daf ko am. Hmm. mais dafa am dafa am Yékini Yékini li Yékini Yékini ni mu doon bëree dafa nekk ci Boy Niang. Yékini day mën lépp daal di texuñu. waaw ah, mel ni ragal. mel ni ku ragal. loolu tamit Boy Niang loolu daf ko am. bu ma sañoon rëg na continuer entraînement mais na man MMA wam préparation MMA préparation làmb dafa wouté mais da ngay def cardio bu bëri wañi séché wu nga ñew ci lamb soxla touti poids yokka touti. c'est vrai que professionnalisme mën nga ko mais bu yàggee bu yàggee làmb dafa yéme mm-hmm. donc donc lool tamit ay professionnel buñ ko wëree c'est vrai te combat bi yàggul li ci des tout. xaw ma ndax dëgg la Boy Niang gaañu na wala gaañuwul mais bu fekkee gaañuwul Fadam état bi ma gisoon ba léegi Boy Niang yoroon ko Sénégal yokk ko indaale ko Paris fii di ko entraîner Fadam bu ñibbisee senegal Sénégal contact cheche wu booy rëg-rëg mën na koo bañ a ëpp doole. te attention rëg-rëg gënul gaaw Boy Niang bu moytuwul balaa moo egsi ci kanamu Boy Niang dana jël ay coups yoo xamante ne du réglé. moytuwul xam nga mu ngi def MMA mu ngi def MMA mu ngi jang xex mu ngi jang ay professionnel ci walum xex mu ngi am loolu yeb grawul mais digg geewu lamb ji bu moytuwul bu boy ñaar doxul momi bu boy ñaar liiree reug reug ak départ reug reug bu ko boy ñaar liiree damay ragal reug reug am lu ko bet ban préparation ngay xaar ci reug reug ci digënté mo boy man pour man reug reug état bi mako gissal barki dem mo njaay baxna mais MMA moo ma jaaxal ndax day dafa ndax dafa amaat combat MMA ndax day séchewaat muscle yi ndax day jeex ndax day oyof parce que lamb aussi oyof bi baaxul. Mhm. te jig na la ci MMA booy dem MMA xaw a oyof jig na la ci MMA. Mhm. mais jigu la ci booy ñëw ci lamb mhm. te damay ragal li ko daal diggante bu fekkee am na combat ci diggante bi war a ñëw wara a bëriwaat xam nga sa diggante comme ni mu def ak Sa Thiès tuuti masse affaire yooyu noonu donc loolu dama ko ci ragalal ko te ba bëri benn technicien boo xam ni nii bu ñaan boo ñang euh, mu bokk ci mbër yi nga xam ne nii euh, waxuma la boo ñang mais staff technique boo ñang ñuy liir mbër lañu. Mm-hmm. ñuy bàyyi xel mbër lañu. Mm-hmm. loolu tamit ci côté rek loolu noo koy jàngatee noo koy bàyyee xel ci côté boobu boo ñang euh, dama gis rek rek mu communiquer communication boo xam nii ak la mu war a indi ci làmb du benn. Mm-hmm. man sax posé naa benn question nee naan ndax rek rek xam na kan mooy boo ñang non peut-être sóoru ko te loolu bokk na ci li ma gën a ragalal ragalal rëg-rëg mooy li daloon Sa Thiès dal ko gis nga booy ñaar dafa xaw ma ndax dafay jàng ci Modou lu bari xaw ma ndax dafa tombé mais booy Niang li des ci Modou yëpp ci booy Niang la nekk ci professionnalisme ci noppi ci dëxëñu ci entraîner noppi xam nga ci régler gis nga damay ragal lu euh, sawaay am lu ko bett te gis nga lépp pour lu nekk si ca Sathiès ci ay ndaanaan ci ndaanaan ba Sathiès daan ko dafa nekk ci Boy Niang te Boy Niang ëppale Sathiès xeex attention Reug Reug mën na bañ a touché sa euh, euh, euh, Boy Niang ba combat bi jeex Boy Niang mën na ko di ko touché moom du touché Boy ba combat jeex attention lan ban secret dama gis dama gis dama gis ne Boy Niang sànq sax jël naa repère ci benn ancien combat bi fi jàll ndax man en général damay jël yenn reperti ci yenn combat yi ndax ma ci jël repère mooy dama gis ne booy rëg saa kees bi bëreeg booy ñaar saa boobu moo ëpp fraîcheur bi bëreeg doole ak doole ak doole te foofu saa kees bi bëreeg rëg baaxul waaw saa kees baaxul te boobu saa boobu rëg-rëg ci vision xool ko jàng saa ak ci biir doole saa la daal saa kees waaw rëg-rëg lan la war a mën a jàngee mooy jox gis nga mooy ñàkk ñàkk jox cër euh, euh, euh, Boy Niang ak bañ a xam kan mooy Boy Niang la saa looloo dal Sa Thiès te damay ragal mu dal mu dal Reug Reug mm-hmm. Boy Niang Boy Niang boo ko xamul mm-hmm. boo ko xamul Boy Niang da ko ñuy ñëw fete amatul du am ci làmb ñëw fete ko ci làmb daan ko wala te gis nga gaa yaa ngi wax jàppante bi sax Sa Thiès gis nga Reug Reug mën na jàppante Boy Niang dara du xew taay Boy Niang tëlewul bëre te du tëlewul amu ñàkkul doole man favori bi favori bi ci combat bii bu Boy Niang paree xaw ma nag mu gaañ wala nangam nangam bu paree man pour man Boy Niang mooy favori ci combat bi man loolu gëm mën naa juuma ah, mais li ma gëm ak li ma gis ñaari mbër yi liñ ma woon rëg-rëg mën na bëree lool mais ni muy entamé combat ba war a egsi ci kaw Boy Niang saay Boy Niang Boy Niang beneen niveau la mais man balaa ñu daaneel rek Eh, ci ban état de forme niveau état de forme rek rek ni mu maigré ni ndax état bobu ru ci bëri boña Niang man lima gëm man lima gëm man dama comme lima la wax sank moy xawma ndax rek rek dafa am combat MMA wala amuko ndax day wat muscle wala day yok en tout cas bu yok naka tay la def am jotu am temps wu séché ko lu mu ci mënta def parce que gis nga wañi poids yokku poids wañi poids yokku poids parfois da ngay di nga ñak doole di nga ñak fraîcheur té lamb da ngay soxla li lamb da ngay soxla 10 da ngay soxla gaaw da ngay soxla puissance da ngay soxla lu ne lamb li ci nekk nekkul ci benn sport. Mhm. ci côté. voilà Boy ñang lan ngay xaar ci moom ci côté niveau muscle bi ak niveau préparation bi ci xaar ci Boy ñang baax na torop li ma li ma li may xaar ci moom moom mooy gis na ko maam ak mudlo Lo gis nga ko maam ak mudlo Lo li mu préparé lenn rek laa ci yokk lenn rek fadam lenn rek mooy pour man combat boobu euh euh, euh, euh, euh, Boy Niang dafa ñàkk fraîcheur xaw ma ndax noppaleeku na de. non jegewul sax ku am fraîcheur Boy Niang combat moom ko waroon a noppalee combat combat Modou Lo lii ngay ragalal lii ngay xam nga Boy Niang dafa jóge ci combat boo xam ne nii daa am luñ ko yeelu baree bare ci côté la mooy Boy Niang numéro deux daa préparé combat boo xam ne nii niveau combat bi la topp bañ a préparé adversaire am te loolu ko daloon sànq moom lay xëmmarlikoo si ci digganteem ak Modou Lo mm-hmm. ndax mooy Modou Lo lépp luy récupération ci yaramam da koy gënal daj ci yaramam da koy bu làmb jege mais boo tamit foofu la foofu ko rey daa topp niveau combat bi ci daj yaramam ci ay coono ci nangam moo tax combat bi ñuy bëri nii damay gis ne rëg-rëg bu jóge ci victoire ak Boy Niang bi jóge ci défaite Boy Niang bi jóge ci défaite day bëgg lépp lu mu ñàkkoon ci combat bale mu indi war rëg mhm. day ñëw mooy ëpp confiance bi ñëw te combat bi rëg moo ci war a gën a ragal war cee bëri indi confiance c'est ça ba pare sa Fadam rëg day bëri koo xamante ne dafay dafa daf war dara waratu ko jaaxal ci lamb dara mm-hmm. dara expérience bi booy ñaa am ci làmb rëg-rëg amagu ko ci làmb mm-hmm. maanaam rëg li ci Boy Niang am Boy Niang combat bii nii combat am la combat bi pour man sax jarul conseil maanaam waa Pikine niñ koy daree di ko conseil conseil dul jeex papam bi daw jaru ko Boy Niang normalement combat bi war na xam nu mu war a aborder combat bi de A à Z jeex na l' mooy bu ci ñàkk fraîcheur bu mu fi topp voyage yi aussi man gëmu gëm ni voyage gu bëri gi mystique gu bëri gi amul njëriñ peut-être xaw ma lan mooy mystique mais mystique gu bëri gi jaru ko fadam da ngay sonn doo am taxu wu repère booy ñaa bi muy bëri ak loo Lo yow da nga dugg si ci làmb ji tuus sangoo lu dul jeex loo Lo taxaw di la xaar. Ama Baldé looloo ko daal Siteu bi muy bëri barki de Mondiaye Lac de Guiers looloo ko daal mais lan moo leen tee teel a ñëw ci làmb ji. mais Reug Reug na na tey ci combat bi am na combat bu gën pour man combat bi moo gën a compliqué sax bi muy bëri ak Ama loolu am na solo mais frère tey yii da nga développé koi da nga développé mais ah, yaakaar naa ne dinaa laaj. non yow tamit dama la nam dama la nam dama la <laughs> mais daal fi làmb jëm fi làmb jëm mooy kontaan naa trop. maa ngi naaj ci côté bi am na na solo trop kontaan naa bu baax a baax a la invité dinaa la invité ñu waxtaan ci diggante Ama Baldé Franc yooyu. waaw ak ëllëgu Balla Gaye numéro 2 bëgg naa ñu waxtaan ci. mais loolu après dañ ci dellusiwaat ci. mais Fadam na la def signe après parce que il faut que il faut ma jël la euh, gars yi ci ben séance d'entraînement bu intense Fadam ne da nga taxaw ba tay physiquement. non baax na ko ñu déggante jërëjëf jërëjëf ko ray ngay won waaye do ko amé ci won ko ray do ko amé ci won mais gaay ya ah eh Alhaji Moustapha kanji la grand ceddo ah maa ngi nuyu amateur lamb yëpp gaay ya ah hmm, maa ngi nuyu amateur lamb yëpp. am Ama Baldé France dañ ci ñëw sànq développé naa ci mais xam naa ne guddi na ah tey gars yi xam nga première live la suba nañ live ginnaaw suba dinañ live ginnaaw suba dinañ live commencé nañu te xam nga actualité bi lañ doon xaar mu ubbeeku ubbeeku na ah mais nice na nice na nice na ah ñu ngi leen di jox rendez-vous yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura di leen ñaanal xéwal yu bare bare bare bare bëri yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ah yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. defal ñëpp sutura defal ñëpp ay xéwal ci barke Seydina Muhammad ci seen nof gaay jërë ngeen jëf